vais vous faire euh, une vidéo comment sur l'autoroute. Voilà, je suis dans l'autoroute, je signale pour aller à droite. Mais bon, comme les voitures vont sortir, je dois aller à gauche pour laisser de l'espace. Voilà. Mais avant tout, je signale aussi, je regarde sur ma côté gauche a personne. Donc euh, là, je conduis tout droit euh, que je suis sur l'autoroute. Donc, euh, ok, je dois toujours être à ma droite s'il n'y a pas de voiture à ma côté. Pour laisser l'autre côté libre pour les gens qui vont doubler. Donc ici, quand je veux doubler, y a une voiture qui est devant moi. Pour le doubler, d'abord je signale à ma gauche je regarde à ma côté droite, juste sur ma l'épaule s'il n'y a pas de voiture qui est à côté. je double. doucement. donc voilà euh, booy doubler daal ni ngay def nànk nànk nga dépassé ko euh, dépassé voiture bi nànk nànk voilà boo ko dépassé nga delluwaat signalé sa droite xool sa rétroviseur kanam ak côté bi delluwaat nànk donc apparemment je roule très vite donc euh, c'était juste pour vous montrer comment doubler sur l'autoroute donc lui il m'a doublé encore donc c'est normal moom kii nii moom ma doublé oto bi daf mu doublé bi oto bi dafa paat keneen doublé waat na ma parce que dama wàññi sama vitesse yi may daw léegi gis nga kële ne nu muy doublé ma ngay signaler di doublé ne moom euh, souvent si tali yi kese lañ mën a duble parce que lii ay lignes yoo xam ne nii dañ ko dagg discontinu la ligne yu ñu dagg la maanaam nit mun na ma doubler comme oto bii nii euh, di ma duble keneen na nga koy duble deuxième en deuxième position donc loolu c'est possible parce que tali bi yëpp c'est permettre pour nga doubler mais ligne bi bu bu weex bi nekkee sama côté droite foofu aw ma fa droit jéegi parce que ligne bu continuer la exemple su ma ñëwee si sortie yu mel nii chaque jour dama war a signaler pour dem sama bos pour bu nga amee ay oto dañuy génn fii ñu mun a am espace pour génn mais comme instant bi may jàll amul oto yu nekk sama kanam donc mun naa continuer tout droit ñi nga xam ne dañu bëgg a xam ni ñuy doubler waaw doubler moom yomb na mais dafa am fu ñu war a doubler ak fu ñu war a doubler d'abord li ngay njëkk a xool. nga xool ba xam tali bi dañ ko marqué wala marqué wuñ ko ba xam dafa nekk ligne bu ñu continuer la ligne boo xam ne dafa ferme wala ligne bi nga xam ne dañ ko dagg maanaam ligne discontinue maanaam yii nga xam ne moo nekk sama côté côté gauche donc yooyu yëpp dafa jar a xam booy doublé da war a d'abord xool say rétroviseur ba xam amul oto bu la jege nga signalé soo signalé espace bi libre nga doublé comme kii mi ngi may doublé signalé na ma doublé na waaw pour wax doublé daal loolu la mais si autoroute euh, moo gën a yomb doublé parce que y a de l' espace mais oto aussi boo koy doublé da nga koy da koy da nga koy xaw a may espace moo ñëw aussi comme gis nga kee nii muy duble mais dafa doublé ba pare delluwaat si liñam yaatu na set na bind bi leer na gis nga kee ma ngay doublé signalé na doublé ma it maa ngi nii su ma bëggee doublé oto bi damay signalé signalé na xool naa sama côté càmmoñ gisuma oto bu nopp sama ginnaaw ma génn ñëw si ligne digg bi si digg bi kii wit su ma ko bëggee doublé tamit noonu rek laa laay defal la même chose damay signalé may génn damay signalé waat pour léegi daal li mooy dawal bi waaw ligne yi moom mooy dawal euh, dafa am fu ñu war a mooy ligne yi nga xam ne nii dañ ko séparé moom nga war a doublé mais signalé xool sa rétroviseur loolu daal mooy doublé kon euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah am naa beneen yoon euh, boo leen amee question mu mën a def vidéo naa ko def incha allah Allez, bonne chance. Ciao, ciao.